mbokk yi yéen ñi may waxal xam ngeen luy yoon xam ngeen kon ne yoon am na doole ci nit diirub dundam ci maanaa mi ngi mel ni jigéen juy séy yoon a ngi koy boole ak jëkkëram ñu ànd seen giiru dund waaye su jëkkër ji faatoo buum gi dagg na kon nag su jabar ji àndee ak beneen góor te fekk jëkkër jiy dund des na ko àtte njaaloo waaye bu jëkkër ji faatoo yoon jeexal na seen diggante mën na sëy nag ak beneen góor te loolu du njaaloo nii laa leen ko mën a misaale samay mbokk bi kirist deeyee dangeen a deyandoo ak moom te noonu yoonu musaa wàcc leen léegi nag yéen a ngi ànd ak keneen maanaam kirist mi dekki ngir nu amal yàlla njariñ keroog ba nu daan topp sunu nafsu yoonu musaa daana xamb bëgg-bëgg yu bon yi yëngal sunuy cër ba jural nu dee waaye léegi yoon wi wàcc nanu ci li nu dee ba rëcc ci buumam léegi nag nu ngi jaamu yàlla waxuma leen ci sàmm santaane rekk ndax loolu wees na waaye ci kàttan gu bees gi nu xelum yàlla di may kon nag lu nu war a wax ndax bàkkaar yoonu musaa la jóge mukk waaye moo ma xamal luy bàkkaar ndaxte su ma yoon wi waxul woon bul bëggee fi jàmbur kon duma xam luy xemem waaye bàkkaar jaare na ci ndigalu yàlla daldi ñëw dugg ci man ba yëngal ci man xemem yu bari ndaxte ba ma xamagul woon yoonu musaa bàkkaar dañu woon nemmi ci man te keroog bi ma xamagul li yoon wi santaane maa ngi doon dund dund gu neex waaye ba ma ko déggee bàkkaar dafa daldi fudd ci man te man ma daldi dee noonu gis naa ni ndigal loolu waroon a jëme nit ñi ci dund dafa ma jëme ci dee ndaxte bàkkaar jaar na ci li yàlla digle ba ma rey ma kon nag mën na noo wax ne yoonu musaa yoon wu sell la te ndigalu yàlla dafa sell jub baax ndax kon lu baax moo ma ci dee mukk bàkkaar a ko def ngir jikkoom feeñ dafa gis ci lu baax loolu bunt bu mu mën a jaar ba rey ma noonu ndigalu yàlla tax na bàkkaar fees bon ba jéggi dayoo xam nanu ne yoonu musaa ngi jóge ci yàlla waaye man yëfi àddina laa fonk te nekk ci doole bàkkaar mel ni jaam ndaxte samay jëf jaaxal na ma li ma bëgg a def duma ko def waaye li ma bañ rekk moom laay def kon nag gannaaw li may def du sama coobare nangu naa ne yoonu musaa wi baax na léegi nag du man maay def lu bon loolu waaye bàkkaar bi dëkk ci man moo ma ciy jiiñ ndaxte xam naa ne lu baax dëkkul ci man maanaam ci sama bindu doomu aadama am naa yéene def lu baax waaye awma kàttanu yeggale lu baax nag lu may yéene duma ko def waaye lu bon lu ma bëggul moom laay def bu fekkee nag lu ma bëggul moom laay def kon dootul sama coobare waaye bàkkaar bi dëkk ci man moo ma ci jiiñ gis naa nag lii saa su ma bëggee def lu baax lu bon a ngi ma taxawu ndaxte ci sama biir xool yoonu yàlla wi neex na ma waaye gis naa jeneen doole juy yëngu ci samay cëri yaram di bëre ak li sama xol bëgg day bëre ba noot ma def ma jaam ci dooley bàkkaar jooju yëngu ci samay cër céy maaka torox ana ku may musal ci sama yaram wii may jëme ci dee maa ngi sant yàlla am na kuy musle moo yeesu kiristu sunu boroom kon nag lii laa gis ci sama bopp ci sama xel maa ngi topp yoonu yàlla waaye ci sama bindu doomu aadama maa ngi topp yoonu bàkkaar